Assane ñu doore ko ak Mame Boye Diao mi porté plainte euh, ki nga xam ne mooy Adama Fall mi sàccoon ay parrainage ni muy dem biir APR génnewaat na ko yóbbu ko ci kanamu justice ngir ñu leeral loolu le waaw am na solo <clears throat> loolu moom bu fekkee wér na dana ma jaaxal bu fekkee wér na ni Mame Boye Diao dafa yóbbu aadama Fall ci yoon xullil fii waaw dama ne bu fekkee wér na dana ma jaaxal. waaw dama ne lañ si ko si. waaw fii xam naa ko dama bu fekkee wér na man journal bi laay waxal di. Mhm. bu fekkee journal bi li mu wax am na dana ma jaaxal ndax Adama bi ñu ne dafa daw ak parrainage yi. Mhm. ñoom ñoo génn ni Adama gisul ay parrainage sax bay daw ak i parrainage. ku wax loolu. ñoom. ñoom waxoon nañu loolu. waaw. ni gisul. ni dawut ak i parrainage. kan wax ci ñoom moom mii ñoom ñëpp wax nañu. moom mii ñoom ñëpp. waaw boo naan ah, ñoom ñëpp da nga naan ma kenn waaw ñoom la kay mënee naa ñoom kay ñoom ñëpp la rek xam nga ñoom dafa am ñu muy concerné dalal dalal dalal nañ kenn ku bokk si communication bi fii si takk zoo mu ni booba yaa ngi yéen a ngi fi woon si plateau bi da xam naa ne hélas mën naa am dina si ñëw mais daal li wér ñoom d'accord nañ ni mm, seeni parrainage mi ngi ak ñoom bu mm-hmm. déposé jotee dinañ dem déposé ji ko matal nañ. mais Adama Fall yoru ko. Mm-hmm. kon nag lu tax ñu ne Adama Fall yoru ko tey ñu wëlbati ko ni Adama Fall dañ ko yóbbu si yoon lu ma jaaxal daal la. d'accord mm-hmm. kon daal danga jàpp ne am na wax yu juunoo waaw am na si lees waxut lu si nekk wala manipulation bu si nekk wala détournement de conscience bu si nekk. détournement de conscience détournement de conscience Sénégal léegi lépp la ñu détourné. détournement de conscience. détournement de xel kon léegi ak kees mais hmm? conscience. conscience ak confiance. ak confiance yëpp la ñu léegi. ah oui conscience dañ koy détourné confience dañ koy détourné. lépp la gars yi détourné léegi. ok. Hmm. alhaji daa mel de waa ji ba mu dawee duggaat kër baayam dafa mel jàpp ne rëcc na maam booy jaaw fekk na ko fa mboq ko mboqum fanaanal génne waat ko yóbbu ko ca yoon waaw xam nga bu ngeen di jee scénario da ngeen a war a lépp kan bu ko defee théâtre bi bu génnee sénégalais yi ci seen jëmmi bopp ñoom ñi non ma ne bu ko defee théâtre bi bu génnee sénégalais yi bu ñu ko mënee seetaan ñi ak ji xam ne lii kat jaar na ci yoon waaw loolu yëpp lu duñ kii la mais bu njëkk mi ngi xam nga dañu ne mam bo ci Adama Fall dafa ñëw ak kanamam gu lawet jàkkaaru kii ne nangu na mbiir bi hmm. doon acteur maanaam doon ki nga xamante ni ki moo nangoo jouer rôle euh, bu ñu ko doon wax ci film dañ naan rôle bandi bi hmm. ak kanamam gu lawet ñàng-ñàng lu ñëw taxaw ba mu ñëwee <laughs> taxaw wax bi mu waxee ñoom ci seen biir peut-être am na ñoo xam ne nekkuñu au ci mbir yi ñi nga xamante ne bi ñoo yore mbiru parrainage bi ne aadama gisut déggut li Yaasan wax loolu lañ wax ne yorut sax lu jëm ci wàllu parrainage wedd ko ba mu set wecc hmm. ba démb rek defet bërki démb rek hmm. lañ fi invité booy booy bi ne aadama Fall réunion sax nekku fa hmm. maanaam weddi lépp comprendre ñu ñëwaat tey ñu ne maam booy ngay dëggal boppam waxoon naa booy bi ne ko fa ñuy tëggee mbir yi est-ce que yow yaa nga fa fa ñuy tëggee waaw fa ñuy tëggee mbir yi fa maam booy jaawa di waxeek ak Adama Fall la mu bëgg parce que maam booy jaawa xam na ni am mënta am parrainage comprendre nga. léegi dina wut pexe ngir génn ci mais aadama ma yàqal. ok comprendre nga foofu la ñu bëgg a yóbbu mbir yi rek maanaam awma parrainage mais naa am lay pour wane ni pour bañ a wane ni tekkiwuma dara ci réew mi waaw. ok loolu rek mooy li nga xam ne mooy que parce que maam booy li ko daal mooy li la wax ci jël gi nit ñi xamuñu ko. que ni nag ñi nekk ci télé yeeg yooyu def politique xam maam booy jaaw loolu ñooñu loolu seen wareef la mais ñeent sénégalais yi xamuñu ko. mais la li tax Sénégal léegi gëmatuñ ñaar ñuy xeex. léegi xeex bu am ñu ni bëree. non non non c'est que Adama Fall dafa am. dafa am Adama Fall yabeewut maam booy jaaw yabeel gu doy ni jël ay parrainage am naan ko ñëwal sa kër bàyyi. yab yabeewu ko yab yabeewu ko quoi. mais léegi justice biñ ci dugal nag. justice bi ñu ci dugal xam nga justice moom. lenn nga war a xam ne théâtre amu mën nañ dem ba yegg. maam booy ne baal na ko moo ko yóbbu ci yoon mën nañ ne baal lañ loolu yëpp. mën nañ baal jël ay parrainage su jàmbur waaw. wala ñu dem ba yegg sax aadama mën naa gañe daal ne bon kele bi ma jël du kele kii bi. du kele du kele loolu bi en tout cas dinañ wut lay daal. ñoom la ñuy lay ah. du ma leen wutal sax schéma boo xam dañ ciy génn ñu ngi ci mball moo xamante ni bi ku yóbbu bàyyi leen ci mball bi alaaj yow mi yaa yow alaaj yaa ne ci ñàll yu fi mu toll na yàlla ndax yow ñii ngi ci ñi ngi ci seenub xeex ak xuloo kii sàcc na parrainage naan ko dellul sa kër bàyyi parrainage comme parrainage xool na ne affaire yi baaxut aadama ne ko dinaa doxalee nii ay rôle rek lay joué dañuy joué dañuy caaxaan quoi maam booy jaawa dafa man a matal parrainage mënu ko ah man nag vraiment nag kon yàlla mënu ko léegi ku mënul matal parrainage looy dee élection looy demee élection waaw mais da doon natt boppam rek léegi daa maanaam day gësam pour jéem a mel ni ku kii rek pour ñu woo ko fi mu toll nii lii lii yëpp mën na jëm ci arrangement président moo ne ma bàyyi mais sinon mën nañ jëm ci yooyu xam nga yii yëpp sax soxlawu sax parce que bàyyi déedéet non amul jëru toog kat alaaj da ne fi wax waaw mais c'est que ne yooyu yëpp mën na ci nekk quoi ay président moo ma ma bàyyi affaire yooyu mais quand même xam nga fi mu toll nii damay comme que am nañ tardement diggante bi bon je vais retourner dinaa dem ci kii kii euh, Amadou jeex na. mu ne bon du ma waxagum léegi ñu bàyyi bañ ne candidat yi ñii la ak ñii ak ñii mu rallié ci benn candidat APR. waaw hmm. loolu la rek. sa xalaat la. mooy mooy li ñuy bëgg xalaat xam nga yaa tax sax ma xalaatal leen ko nii parce que ñii xam naa leen war na yàlla. xam nga yaa tax ma xalaatal leen ko. yàlla ci xam ne Assane doon def di wax say xalaat. doon maa ngi di wax seeni xalaat xam nga tamit lii yëpp yaa bu ko indil waaw xam xam nga ci jaaxaar la jàng soo ji dañuy théâtre de billaay ci théâtre lañ ne rek. Ah, baax na kon ñooñu ci lu sérieux quoi xam nga candidature Mame Boye Diao mos a sérieux candidature boo xamante ne bi yow barki démb boo Ndiaye yaa taxaw ne président Macky Sall. defal loolu ñu wax ñu ne Mame Boye ngay bind livre ne day def programme day bind livre xanaa dañ koo bindal livre Mame Boye Diao jàmbur la nar a yenu ñëw ne maanaam. waaw que benn waay mën nañu. waaw toppal fële mu naan barkeel la. léegi saa mi mi saa mi jaar ji mbooy gi saa mi ci pax mi fi doon lii. jaar ji pax mi. daal la quoi day bind livre quoi. warut a bind livre. non non bindul livre dañ koy dañuy gars yi kenn nay bind livre fële rek gars yi dañuy ñëw xanaa xamoon leen yow pareen yu bari yi ngay gis nii billaay gars yi ko bind genn wàll gi buur na yaa ngi gis benn waay boo xamante ne day kii man ñaata théâtre indil nañ ma ko fi ñoo xam ne bind nañ seen scénario ba pare mais da leen di wax na leen sëñ bi man de wax dëgg fa yàlla produire gu ma te lii moytul di ko wane. Mhm. yaa ngi dégg parce que dañuy dem ci ñeneen. wan leen ko ñooñu ne leen woy amul problème bon on va examiner xool kii beeg yooyu pour produit ko sàcc ko tourné ko loolu bari na fi théâtre yu bari gars yi ko bind amuñu ci dara da ngay jekki-jekki ñu ne la diw moo bindoon théâtre sàngam mais gis nga xool dañ koy soofantal sax nit ñi te pourtant day am maanaam da ngay ñëw ñu tuddee théâtre bi nii ñu changé tour bi nga tuddee acteurs yi ñu changer ci yenn yi la ñuy soppi quoi mais yow dalay wóor ne yow miy borom idée bi lii sa idée la yaa ko indi woon yaa ko joxoon diw day dal nit ñi pareen saay ci télé nga gis ko am projet émission mhm. dem yóbbul ko nit nit kooku non seulement du la jël pour nga liggéey ci mais far muy def émission ba. xam nga yooyu sooy bu gis nga ko yàgg nga ko gis. Ah, voilà donc nangu nga ah. <laughs> parce que dem ba dugg ci sa caaya. c'est waaw boobu la moom dëgg la moom. bala na ma de waaye directeur bi dootu ko nettali <laughs> waaw audio audio fukki minute laa ko defal. <laughs> gis naa ko muy taxawaalu fii fan yi sax de <laughs> directeur booba gis muy taxawaalu ci benn émission bii de wala fajiri fa bi dafa doy àddina bi dafa doy waar waaw ah, loolu dëgg la gis naa ko muy am nit ñoo xam ne dañoo jubadi jubadi bu extra jubadi amul benn njëriñ nag après ah, mu ah, du la jëriñ dara loolu moom dëgg la fi nga la sëñ Fall waxoon rek mooy ne waaw balaa mu koy ñàkk jariñ dara fekk loola jeex waaw dëgg la daa waxoon ca junni ba am du ko jariñ dara mu nekk daa jeex man nga dëgg de